doon wax lan mo la gëna marqué sa carrière lan nga ñuy wax. bo sama carrière nak lima ci parce que dama ci dugg très jeune. Mhm. donc lima gëna marqué sama carrière bokku na ci RTS. Mhm. parce que nek na fa xale côtoyé ay mag. yo xamantene ni tay ji ku ci nek lu bari puiser na tout ci yow. donc bolé ko mu défar ma donc ci melni Michael Souma ku ci melni Ya Yakham Cham ak ñeneen ak ñeneen ño xamantene ne ji def nañ ci man peut-être quelque part ci métier bi. Mhm. euh lo ne mun naa ne lii def ci man. donc euh, ak euh, li nga xamante ne remplacé naa mënuma ni sax remplacé yàlla tey teg na ma place Ndeye Awa mbay muy Eva donc loolu loolu da da lay marqué mhm. da lay dans dans dans la mesure où tey jii euh, mënoon nga ñëw mu demee neneen voilà donc bu boobaa it dañ naan kiñ fi teg matu ko mhm. donc tey sante ko yàlla donc ñaari yooyu daal ñoo ma ñoo ma marqué dans cette villa bi nga xamante ni moom lay moom laay def muy vie wu rajo leen li ci des nag day am yuy neex day am yuy naqadi parce que dund bu nekk noonu lay demee des fois da ciy dund loo xamante ne day metti parce que métier la moo xamante ne yow yaa ko bëggal sa bopp man damay feebar sax ñëw liggéey si su ma nekkee studio damay wér bu ma génnee studio feebar voilà donc loolu yàlla moo ko def